waaw bu ñu leen euh, gërëmee yéen ñëpp sant leen ci seen teewaay euh, dañuy wax ne tey secrétaire exécutif nationale bu parti socialiste dafa daje dafa daje tey ci ngoon pour waxtaane benn ponk tey benn ponk rek li ñu amoon suñu ordre jour muy journée hommage bi nga xamante ne parti bi mi ngi koy préparé madame Aminata Mbengue Ndiaye secretaire général bi muy ibbi réunion bi daf ñu ñaax ñun militants ak sympathisants parti socialiste ci réew mi yépp pour ñu mobiliser wu pour delloo njukkal boobu ñu war a delloo suñu camarade Ousmane Tanor Dieng bi nga xamante ne dafa génn àdduna après que république bi rendre ko hommage yéen a ngi fàttaliku mobilisation république à la tête président Macky Sall bi nga xamante ne lii xew-xew na dafa taxaw teeru corps bi def fa discours bu mu fa def gunge ko ba ngéñeen ñu janco ko mu soog a dellu ñibbi mu ànd seex président Boubacar Keïta bu Mali bu ñu fa génnee mu daldi ko aussi sargal ko te bu ko sargalee parti bi yëpp la sargal mu tuddee ko sphère ministérielle yu yees yi ñu gis jam mu tuddee ko benn ci sphère ministérielle yi daal di ko immortaliser bi ñu fa jógee aussi au conseil des collectivités territoriales bi nga xamante ne moom moo doon président bi nekkoon le premier président de cette nouvelle institution ñoom tamit rendre nañ ko hommage le monde sportif avec la ligue professionnelle rendre na ko également hommage sa mbuur tuddee ko sax benn tournoi boo xamante ne léegi dañ ko taxawal ci agenda bu football ñu tuddee ko coupe Ousmane Tanor léegi bu ñu jógee ci yooyu événement jaa dafa jaadu woon parti bi nga xamante ne moom moo doon secrétaire général bi nekkoon premier secretaire nekk secrétaire général boo cumulé ñaar ñëpp mu mat ñaar fukki at ak euh, ñett donc parti bi dafa waroon a taxaw aussi indi hommage ñun nag li ñu arrêté tey ci réunion bi mooy ñu taxaw ñu def hommage boo xamante ne day nekk hommage à la dimension de l'homme mu nekk ñaari phase bi ci jëkk mooy àjjuma le 21 février incha allah dinañu dem Nguéniène Nguéniène ku ne xam na ne fa la Ousmane Tanor Dieng fekk baax mooy village nataalam moo nekkoon sax maire Nguéniène maanaam Nguéniène bi ñu ko érigé commune Ousmane Tanor Dieng moo nekkoon le premier maire ku ne xam li mu fa représenté ak lu mu fa def tubaar fakal donc ajjuma incha allah si suba gi parti bi yëpp dina dem fekki fa mbokkam yi camarade bi nga xamante ne ñoo nekk ngeeñeen pour fekk si euh, rendre ko hommage foofu localement ñu jàng alxuraan ñu wàcce ay kaamil buñ ci paree ñu dem sa kër famille ba buñ ci génnee également daa daañu recueillir ay témoignages camarades yi nga xamante ne ñoo nekkoon ak foofu moomu foofu ci coordination PS ak ñi nga xamante ne ñooy famille buñ fa jógee incha allah dimanche donc sa gannaaw ëllëg sa mooy nekk la grande journée domage fii ci maison du parti Léopold Sédar Senghor dinañ si xaar ay invité yu bare incha allah waaye aussi dinañ ci euh, xaar walla sax militants socialistes yi ci régions yëpp ci quatorze régions yëpp ñoom dinañu jiitu gan yooyu pour teeru leen fii ci maison du parti Léopold Sédar Senghor liñ ci prévoir aussi foofu mooy gannaaw delloo njukkal ak fàttaliku dañu ut ku am ku xelam màcc ci archive ak documentation mu defal ñu benn exposition photo maanaam photo yoo xamante ne photo yu yàgg la boo ko xoolee te fii lay nekk ci ci salle bi di gis Ousmane Tanor Dieng si facette yu bare bi mu nekkee jeune bi mu nekkee jeune conseil diplomatique ba bi mu nekkee nii secretaire général ak président du haut conseil des collectivités territoriales bu ñu defee vernissage u exposition boobu comme ni ñu koy waxee bu ñu demee ci salle bu mag bi salle des congrès ñu fa def ay communication yu am solo daañu am film foofu aussi seen ay moroomu journaliste naat eh, ñu am ñu xalañ ci mbir moomu def nañu ñi ngi def benn film boo xamante ne day retracer histoire u feu Ousmane Tanor Dieng daañu ko projeté ci biir salle bi camarade secrétaire général Aminata Mbengue dina délivrer hommage du parti socialiste dina ko prononcer ci biir salle bi au nom de l'ensemble du parti gan yi nga xamante ne ñu ngi leen di xaar aussi te ñu jógee bitim réew ndax Ousmane Tanor Dieng ku ne xam na ne dafa nekkoon kilifa bu mag ci international socialiste am fa ay poste yu kawe donc international socialiste dinañ leen invité dinañu invité ay sax président yoo xamante ne ay chef d'état yoo xamante ne ay xaritam lañu bu fekkee ne seen temps may leen ko dinañ ñëw wala bu ñu ñëwul aussi dinañu envoyé délégation ak yeneen personnalité politique yoo xamante ne peut-être bokkuñu forcément dans la famille socialiste ndax nit ki dimension wu nit ki moo ni toll nekkoon na koo xam ne amoon na ay relation avec le monde politique international voire mondial fii localement naka noonu donte PS dafa bokk coalition Benno Bokk Yaakaar daañu invité évidemment la coalition les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar waaye daañu invité aussi de personnalités de la société civile et même des personnalités de l'opposition parce que nit ki moo meloon noonu dafa nekkoon koo xamante ne sa carrière sa fonction lay wax de diplomate daf ko permettre mu euh, am relation yu baax ak ñëpp amul kenn amul ak kenn xam ma yàlla donc ñooñu aussi daañu leen invité te ñu aussi daañu leen jox kàddu pour que ñu rendre seen hommage évidemment comme ni ma ko waxee gannaaw parti bi moo ko organisé di ñëw teeru gan yooyu parti bi aussi 14 régions yi kenn ku ci ne dina jël kàddu gi si diir bu gàtt daal di nag rendre hommage le camarade Ousmane Tanor Dieng bi fi jóge loolu moo doon résumé wu li nga xamante ne moom la ñu waxtaanee tey ci secrétaire exécutif national mu nekk donc le point unique de l'ordre du jour loolu laa amoon comme information bu ma leen di bu ma leen di jox.